bokk yi gannaaw bu nu sante sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci yonentam ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla nanu yàlla boole jéggal tomb bi ñuy fàttalante dañu koy tënk ci xew-xewub jamono tënk ko ci baatub ku ko am réewam jaral mbokk yi am réew ku xam lim doon xam fi muy toll ci nit bu am réew yaatoo ci moom na ko jël ci kër gam juddoo ak dëkk ba mu juddoo dëkk bi nga xam ne fa la juddoo ak kër ga mu juddoo ak néeg ba mu juddoo ci biir kër ga ak biir dëkk ba kër ga ne ci biir dëkk ba mu doone fa xale bi ba doon gone gi ba doon ngóor si bu dee góor la bu dee jigéen ndege ndege mars ba ba muy doon waaj ba ba muy àgg ci góor gi lii gën a metti ci moom mooy ñu tudd dëkk ba te waxaguñ lañ cay teg fu mu ko mën a fekk fit wa danante rek lii boole nit nag ci am réew léegi bari na di ko boole ci dëkk bari na am na ñoo xam ne farfarloo moo leen fa yóbbu ñu toxal fa seeni këyit ay këyit kese ko boole dëkk ba ñooñu mën nañ faa ba ñu yëg dara waaye koo xam ne yii ma wax fi la ci dëkk la ko defe saa buñ ko tuddee danaan ñog ba ba ñuy wax jàmm buñ ca waxee lu dul jàmm fam ko fekk lum sori sori mën naa gën a metti ci aw naqar na muy mettee ñu dëkk ci biir dëkk ba ci boppam di ko fekk moo tax bànneex bi yàlla boole ak nit ci ab dëkkam akum réewam loolu yàlla moo ñu booleek moom bind moo ñu bind noonu bànneex boobu yàlla moo ko bind ak noonu nee na ci alxuraan su fekkonte ne dafa farataal ci noonu ku am nangami at buñ ko rëyut na rey boppam loolu tiis lay doon waaye lam ko dendaleel dafa ne boobu walla ñu ne ko soo amee nangami at da ngay génn sa kër wala nga génn sa dëkk wala nga génn sa réew dem feneen nee na su ko farataaloon ci ñun ñu néew koy def ci ñun ñoo koy nangu ñu néew su ñëwoon ko am nangami at bu ñu ko rëyit moom na rey boppam wala ñu génne ko ab dëkkam la muy dendaleek rey lu diis la walaw anna katabna alayhim an iqtulu anfusakum aw ixrujuhu min diyaarikum maa faaluhu illa qalilum minhum moo tax ci ay jamono kuñ mas a bëgg a teg naqar wum dul fàtte bu mukk dañ ko naan coppet ci dëkk ba mu dëkk yóbbu ko fu sori foo xam ne dootu gis kenn kuy waxtaane dëkk booba sax muy ak mbugalam am na luñ ci xam waaye yonente bi sallallahu alayhi wa sallam it ci ak matam jàngale na ko ba mu ñu koy jàngal ci nit ak fa mu dëkk na muy soree ci moom mooy nekk na ci makkal mukarrama makkatal mukarrama coono bu nekk ñu teg ko ko teg ko ñooñam waaye la tax jéemuta jëflante ak waa dëkk ba ci biir dëkk ba daa xam ne lu fa yàqu moom la yàqu lam tànnoon suñu boroom fekk ko ca mooy jóge fa dem feneen gàddaay waaye la muy dëgër lépp wan nañu ak niteem ba mu demee bay bëgg a génn fañ naan fii la makka tàmbale dafa geesu ne ndaw dëkk bu ma bëgg buñ ma fi génne wutoon di fi lay dëkk ba faaw wallahi innaka la ahabu biqaai alay ilayya wa lawla an qawmi axrajuni minka ma ma sakantu waay rak sëñ bu mag bi bi ñu ko jëlee ci yéen jolof di ko yóbbu njaareem ba mu déggee turu njaareem xam fa mu féete ci réew mi daa wax cim xelam na ndax yàlla buñ rombee Tuubaa ma xool garabam ya ndaw fu ma miinoon moo tax ba ab xakim buy àtte di àtte ñaar ñu doon xëccoo ab xale te xale bi mënut a wax ku ne ne moo ko jur dana leen nañ leen ko séddale ginnaaw ñaar ngeen tamuy lenn nañ ko dagg ci digg bi séddale leen joxoñ kenn ne ko ndax jubóo nga ci mu ne waaw mu ne kaca des waaw da ko ne ndax jubóo nga ci mu ne waaw mu ne ko fooy féete mu ne fa féete ak bopp bi mu ne kaca des mu ne ko nanguuma mu ne ko yaa ko moom ndax boo ko moomee doo ko séddoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag wax na ne kenn ku ci nekk war na bu xëyee tàllal tànkam mu tàlli da ko cay war mooy sant mu tàllale tànkam mu tàlli mu jóg toog yii toog nangoo toog mu jug taxaw yi taxaw yépp nangoo taxaw mu dem dikk waaj julli suba mu wóor ko ne tey jii dana ndéego dana añ te dana reer nee na kooku da lu ko dese ci àdduna man asbaha minkum aminan fi sirbihi muaafan fi badanihi indahu quutu yawmihi fa ka annama xiisat lahu dunya bi xadafiriha waaye am na ñuñ lañ bëgg moo féete kaw loola te fa yonent bi nañ fa yam ku ko bëgg a weesu mën ngaa def luñ lay xoole ba faw moo tax luy tax dëkk ba nga dëkk ñoŋ daf la ko war a jaral soo xamee lii boole nit akub dëkk waxuma nag këyit rek boole ak dëkk ba këyitu kese këyitu kese kepp dana boole nit cib dëkk waaye la ca waa dëkk ba yëg mën na ko bañ a yëg moom moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci njàngaleem yu rëy ya nee na woon saabu ak njaboot yaatoo yëngu-yëngu dana am te yëngu-yëngu yooyee mënees na ko tudde li ñuy wax fitna loolu ku yor kër bu kër ga doone yow kenn ak kala fay wettali ba yàgg mu tàmbalee wettaliku di tàmbalee wettaliku ba mu doon ay benn benn ba néeg bu ci nekk nit dugg ca tàmbale yokku faw ñol-ñol am waaye bu ñol-ñol amee nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale woon na nuñ ca war a def benn bis lay wax ak njaboot gi njabootu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy jullit yëpp ak nit ñëpp ku nangu di leen leeralal bu ñol-ñol baree yàlla mën naa bañ a tax ndax nañ xool fu penku féete fu xebla féete doo ci dégg ñol-ñol séddoo leen kaamil bi doo ci dégg ñol-ñol dox jëm ca jàkka ji doo ci dégg ñol-ñol dox dem dox dox jëm màkk gi gën a xumb it du am ñol-ñol kenn ku ne daa am lu ko fa tax di dem bu fas ci yéene ëpple moroomam te du ko xëccoog moom xam na ne ka kañ koy wute ci moom daj na fépp mu ne saa bu ñol ñoo tàmbalee am ku ñuy wax xudayfatu ne ko waaw su boobaa man bu ma ko fekkee nu may war a def mu ne ko demal fa mbooloom jullit yi gën a fare te am njiit nga féete fa tey dégg xadis boobu muttafaqun alayh lamma axbara an zamani alfitan wa kathrati duaati jahannama sa'alahu xudayfata amma yaf'alu in adrakahu dalik fa qaala alayhi salaatu wassalaam talzamu jamaata almuslimina wa imaamahum kooku nga xam ne nag moom lañ fab am nos teg ci loxoom moo gën a rëy ñépp aw sas lu ko waral mooy buñ ko gënee jegel si nit gën ko mën a dégg mooy boroom kër boo xam ne day dégg gone guy jooy ka ko tiim yor yar ba naan tépp noppi tépp ak noppil ma munta am mu ne kiy jooy ko mu ñu ne doomi diwa mu ne cel bis bu leneen xewee tam newoon ci kër ga ak bu fa nekkul te yam faw ñu ne ko sa kër nangam xew na bokk yi ana war a goru borom kër lu mu doon gone gum gis mu taq suuf genn taq suuf gi sax war naa woo ka ko yilif ne ko kii di ko taxamal sàkkantuma muy muy séddale ndékki gisut kenn kenn kenn ñëwut war naa xam lu ko tee ñëw moo tax bi jamono tàmbalee soppiku bopp sa bopp tàmbalee am lañu yët ku nekk ndékkeem ca biir néegam boroom kër gi moom ñu dencal ko ndékkeem ba bam naaj lool mu soog ubbi ñu jox ko ko moom kenn xanaa ak ña ko soob ña ca des nag xamut ba xam ndékk nañ wala ndékkul bu ñuy añ xamut añ nañ wala déet bu ñuy reer noona ñoq ñoqal yi dox ci diggante bi it léeg-léeg ñu bar bakar feggul ko tegal ko ne mu defee ne moo ca nekk loolu nag bu ma ko tënkee ci ak kër noonu la ab dëkk di doxe fu njaboot gi nekkit dañu la war di nemmiku di xam ci lu ñuy yendoo ak lu ñuy fanaan su guddee bala moo bala moo fatu bu jëkkoon boroom kër moo daa tëj buntu kër te mooy dëkk it fësas ci buntu ba lu yëngu mu yëg ko balaa dara jàll ci njaboot gi jaar ci kaw waaye léegi lu xew day sancal fii kii wutal fee keefe wutal keefaa fenn fu ne nga ne fa nag yàlla dong moo ko yeyoo waaye mag ña ak nos bu jëkk ba juumuñ ca woon moo daan sës ci buntu kër bi lu yëngu mu dégg ku ñëwut it bu waree tëj buntu bi dana dem ci néeg ba muy fanaan ba xam diw ñëw na am déet lu ko tey ñëw bu ñëwut ñu dem wariku seen kem kat loolu ku ko yilif sa njaboot balaa kenn dem sax ne la maa ngi dem moo tax dégg nañ ba tey dañuy toj këri diw ñoom yi ñenn ñu doxe ca faa ndax amu naqar la leen boole mooy kër gaa leen boole kër goo xam ne ca nga juddoo yaroo ca waaye su fekkee locataire dong nga fa su kër gaay lakk da nga jël sa saak taxaw ne naa ndax woo nañ gaa yi loolu nag ku nekk war na koo jàng ci kër gam dëkk jël responsabilité su ma ko waxee noonu lay gën a yomb a xamee jël responsabilité xam ne lu yàqu buñ la ko lajut tey ji des na ko laaj ëllëg kuñ ko lajut tey ji des na ko laaj ëllëg ndax nangu naa jiite nangoo yilife loolu kenn du ko jéggal kenn moo tax ku dégg njaboot muy jooy bu dee ci geneen kër la sax war na ko war a jóg jaral bu bëggee këram day bëggaale kër yëpp yëm sa soon ndax wàllante bu gaaw bu yomba mën a am ci ay dëkkandoo moo tax ku yuuxu ci geneen kër sax war naa jóg waaye am nañu dañ naan buru sama kër moom amul solo moo tax jël responsabilité jot sëkk sëñ mag bi ñuy ñaan bàyyi na ci xel jëmmi boppam ci nga xam ne moo doon dem ak a dikk bàyyi ca xel diine jim yor ni ci jaamu yàlla boole ci ñooñam ñooñam it mooy ñooñ yonent bi rek sallallahu alayhi wa sallam amu ca fu muy yem kum ci dégg mu yuuxu dana ko jaral jóg laaj ba xam looloo lu mu doon bu dee lu muy man faj mu faj ko su ko munta faj mu woo génn yitte ma muntuta ñëpp da ko tënk ci wenn ba yit moo tax ku yàlla xam lu ñuy ñaan lool ku yàlla xam lool lu ñuy ñaane la day ñaan ba yàgg mu tënk ko ci benn bay ne nafsi wa diini thumma ahli wal walad wa maskani laka wadiatun abad sama jëmmi bopp ji dem ak ñëw dana am fa muy yam diine jii ma yorit ku fi bàyyi ko waratu ko waaye maa ngi lay ñaan nga téel ma boo ne ko dénk naa day mel da nga koy jox ndigal waaye maa ngi lay ñaan nga téel ma sama ñoñ ñoñom nag mooy ñoñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye dëkku wayam bi it mooy réew mii rek ak Afrique gii mu nekk fu fi way dégg fuy bax fuy soow laata muy bax bay wañax bu nangoo ni kilifa la rek jóg jot na ci moom xawma ne ku muy waxal waaye jóg jot na wax jot na kon boog jàmm li koy mayee lu mu doon rek jar na ko waaye lu koy xañe jar na lu nekk ba jàmm sax moom moom moom lañ laaj adduna lu ci gën mën a jàmm ñu ne ko àllaaxira mën a jàmm daal ne adduna ak àllaaxira gisuma fi lu gën jàmm lépp lu na dox sa diggante ak jàmm bàyyi ko te dem dox ci jàmm moo tax ku ko réew mi jaral bu fekkee daa tànn ci réew ma benn dëkk dëkk ca tànn ca ab gox dëkk fa tànn ca fu mu dëkk ne mooy këram kepp féeg laaloo ko jëralu ko jóg dese naa dégg lañ gàll ci aw loosam te kat waqifuhum innahum mas'uluun daa am ñu ko moomale mi ngi ci alxuraan su ëllëgee nit dana layoo ba war a dem ci yërmande suñu borom njabootam nga ne yàlla kee bu demee aljana danañu jaaxal bàyyi na fi ndax li ñuy yàggal fii kat cala ba wax jotee waxutoon ba jóg jotee jotutoon ba ku nekk def la mu bëgg a def lépp kon li ñu dal mënu caa génn yàlla ne axakay nañ ko delloo suñu xool yàlla nag bokk yi kenn réyut ci kanamam kenn réyut ci moom nu waaye mën a toll as njaamam dong ngay mën a doon moo tax balaa jooy di jot ñu ne diw jaamu yàlla rek ko ñor bokk yi su jàmm amul jaamu yàlla ku set mënta am julli mi nga xam ne moo ci gën a màgg moom lañ gis ci alxuraan fu yàlla yaatale muy julli koo xam ne fitna daa am donte moom du taxaw mukk bu fitna amee nee na bu fitna amee ba kenn talatu ko it nii la ñuy jullee mooy ka leen jiite du ne dem leen maa ngi ñëw nam daan jiitee lay jiitee ñu woo benn kuréel wala julli tusbaar ci misaal ñaari rakka lay julli day na ca kanam te ku na ca kanam yomb naa séen waaye da ko koy jaral du yebal kenn day ñëw ba mu taxaw ca kanam ne ay ci leen li xam leen ñu def mbooloo bi ñaari xaaj mu jiite mboo mu jiite xaaj bi benn rakka jóg taxaw moom mbooloo ma àggalee seen bopp ñeke des ñëw taxaw seen place ñi wuutu leen fa ca jàppante ba ñii ñëw mu jiite leen benn rakk sëlmal moom ñu àggalee seen bopp benn rakk kon boog njiit dafa am wàll bu fitna amee moo war a taxaw ca kanam waaye feek tudduñu ko moom wala tudduñu ruq ba mu nekk wala dëkk ba mu nekk war sa jóg loolu njuumte mën na caa am ndax kat bokk yi fa nga nekk am na solo lool junj naa ko waaye yàllaa ngi nii tagg kenn waaye day day kañ kañoon na ñi nga xam ne dañoo bàyyi seen dëkk ya ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak seen kër ya ak seen alal ja bàyyi seen suufi maam ak baay ak seen suufi bopp yoo xam ne ñoo ko wutaat ginnaaw bi ak alal ji te nekk lépp ah fii sabilillah laajuñ loolu fi mu ne nii ci jamono ji laajaguñ ko waaye liñ laaj mooy kuy kilifa rek nga génn ne aha te ña ko séq ñëpp nag nga wax ak ñoom ndax bàyyil jooy yi moom munta ànd ak tépp soo ñëwee da ngay téye kay dóor ba kay jooy noppi nga ne ko looy jooy ak lu ngeen lu mu la def ak loo ko def waaye muñal defe woon naa ne dóor yi gën naa metti nii loolu du kilifteef yàlla na yàlla dafa dëggal topp seen musu yi saa nekk bakkam yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin